mais ci positif ci positif yooyu am na ci juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent contact mooy ñu jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amul ci benn ka bu jóge bitim réew mooy maanaam importé waaye am nañ ci ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ñu ñu tuddee cas communautaire mooy ñu jot ci mbas mi fekk xamul fi ñu ko jëlee wala ci leen wal ñooñu nag seen lim nii la tëddee ñaar fukk ak juróom-benn ci Thiès ñaar ak juróom ci Mbour ak juróom-ñeent ci Popenguine fukk ak juróom-ñett ci saint ak benn ci Mariste fukk ci Ouakam juróom-ñeent ci Dakar Plateau ak ñaar ci Rufisque juróom-benn ci Parcelles Assainies Tamba Touba juróom ci Kër Massar Mamel ak Yëmbal ñeent ci Guédiawaay HLM Joal Kébémer ak Xombol ñett ci Almadi Bambey Grand Kër Mbay Fall Pout Sébi ak Vélingara ñaar ci bopp fas mbaw Fatick Gàngi New Kunun Liberté 5 mba Pout Sébikotane Tivaouane ak Guelngaar ñaar ci bopp fas mbaw Fatick Kunun Liberté 5 Mboro Ngor Ouest Foire Passy Thiadiaye ak Yarax benn ci Bakel ci Bel Air Cambérène Murtada Koki Colobane Dara Dieuppeul Fann Grand Dakar Jaxaay Liberté 3 Makka Matam Médina Mermoz Nioro Pikine Point E Saraya Sicap Baobab Sicap Karak Sicap Mbao Sud Foire Thiaroye Azur Kilol Yoff Zone A zone de captage ak Ziguinchor ñaar téeméer ak juróom-ñeent ci malade yi nga xam ne ñaar téeméer ak juróom-ñeent si malade yi ñu entré woon ak ñi nga xam ne ñu leen toppoon ci biir kër yi wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee juróom fukk ak ñeent ñoo nekk réanimation fukk ak benn malade ñoo ñàkk seen bakkan bésu démb alarba ñetti fan ci weeru février bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa njëkk ba Sénégal wëññi na ñaar fukki junni ak juróom-ñaar ak juróom ak fanweer ak ñett ñoo xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar fukki junni ak ñaar ak juróom-ñett téeméer ak juróom-ñett wér nañ ci juróom-benn téeméer ak juróom ñeent ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñeent junni ak ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom ci loxo docteur yi wala ci lalu hôpital yi ministère de la santé l'action sociale mu ngi ñaanal ñooñu génn àdduna yàlla xare leen àjjana di ñaanal ñooñu des hôpital ak ñi nga xam ne ñu leen topp ci biir kër yi la may leen tànn ba mu génn ak jàmm ministère la santé et de sociale mu ngi woo askan wi ñu gën a sa sàmmonte ak digle yi muy fàttali bés bu nekk di leen wax na ngeen aar seen bopp aar seen i njaboot aarale askan wi di bàyyi xel ci mbir yi di sol seeni i masque ni mu waree masque dafa war a muur gémmiñ ak bakkan di raxas seeni i loxo saa su nekk ndox ak saabu wala di jëfandikoo gel yu ànd ak qualité di teel a dem hôpital wala dispensaire bu leen gën a jóge wala di jokkoo ak seeni i docteur saa bu ngeen nemmeekoo ko yaram bi dafa bu leen soxla dabee ci yenn bërëb yi nga xam ne mënul ñàkk tamit ngeen mun di dandante balaa ngeen di fa jëlee doomu jàngoro ji ministère de la santé et sociale mu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam